yëkkati na coow la ca pëndub teen ba gaañaamul baaga tribune yéene kaay naan maan jàpp ne gouvernement gu senegal gii mën naa teggil coono kan wi teqalee leen nag jafe-jafe jaamu seeni soxla dee nax sa bopp la yéene kaay yib dee média bi naan maan xoolal gouvernement Amadou Ba de rek gouvernement goo xam ne laaj war nañ ko samp ci mission lay dox wala it démission yéene kaay bi naan maan daal di tekki ndombal tànkam ci lépp loo xam ne mooy jafe-jafe sénégalais yu mu waroon tàqaleeg moom moom gouvernement goo xam ne day tekki ndombal tànkam ci xeex goo xam ni dees na ko xeex njëg gi ni mu ci ndaw yi nga xam ne daal dinañuy sëngeem jaxle réew moo xam ne wut fi liggéey daanaka moog jaxannama soree wuñu ñu ne gouvernement de combat combat goo xam ne ñàkk nga ko fayal laaxu yow moom dangaa dem ardo te kurpañ tàbbeegul téppét sa kanam moo tax tribune naan askan wi xaar leen lii ci gouvernement Amadou Ba dey muy digee rek danaa danaa danaa goo xam ne du masa nguurug Sénégal daal leen moo ko intéressé tribune ay wax de moom moo di nag daal di jël impôt yu cher tàbbal askan wi di téppati ay entreprise ñuy tëj ak di daw di naxsaay waxtu woow nga xam ne milliards yaa ngi tàbbi ci seenu gafa ñoom nag ñu am ab dund goo xam ne daanaka ak buura buur goo xam ne daanaka da cay booleeg buure yéen kaay bi dee bi naan man attention lu ne mën naa am ci gouvernement gu yees gii nga xam ne daal dinañ koy taxawal nag l'info yéen kaay sampub laaj nag ndax yaakaar nag mënta am ci duudu kam yi nga xam ne def nañ ko yees ministre de l'économie du plan ak bu coopération bu Sénégal ñu teggi teg fee yéen kaay bi dama fidélité ak président Macky Sall waaye wax ci jaar jaaram parcours am diggante njàng ma ca Paris expérience ba ci ingénieur financier jaar-jaaram diggante ministère des transports aériens AIBD ba ci FONGIP jii ndaw yi yaakaar dëgg-dëgg ci réew mi nu muy doxee waaye tam seen koom nees leen ko téyele ba yaakaar googee day duma sa yankeeku fayallaahu réew mi quotidien naan man en tout cas yaakaar Ousmane Sonko yankeekuwul juge ba ci boppam daal dinay dugaat Ousmane Sonko ci liste électorale yi tribune yéen kaay daal di may xamal ne moom juge ba ca Ziguinchor ca tribunal grande instance ba nee na Ousmane Sonko nu turam tàbbiwaat ci liste yi Walf Quotidien naan maan procès bi ñu doon waxee ci wàllu radiation Ousmane Sonko la l'observateur naan bu dee gaa yaa ngi koy laam-laamee naan dañ koy toppit ab ndam la laas yéene kaay naan man en tout cas topp gu njëkk gi mooy agent judiciaire bu état bi nga xam ne dafa bëgg mbir mi nag ñu daal di koy tas yoro Moussa jàllo daal di daar daar ñaabar ñaabar dem ci cour d'appel bu Ziguinchor fas yéene nag juge bi nga xam ne moom moo àtte Ousmane Sonko ñu déjjiti ko moom juge Sabassi Faye ne la daloon Hippolyte du matal mukk riigu àtte laay def Vox Populi naan man ko xam le ni ci boppam mën na doon candidat fukki waxtu ak benn la audience ba daal di am lee avocat Ousmane Sonko yi di ko rafetlu l'info naan man maître Khoureychi ba dey ma ngay xam xamle ni ndam lii ndamuk Ousmane Sonko la juge bi nee na mën naa bokk ci élection yi jéem nañu pexe bu ne ngir baare Ousmane Sonko waaye tey jii daje nañu ak juge boo xam ne daal am na fit wax la nga xam ne moom mooy yoon te juge Sabassy ci boppam dugg na ci taarix ba faw maître Clédor li ne jaaxle daal la ñu def ndike yoo am nay magistrat yoo xam ne am nañ fit te war na leen tiit tiitaroo te daar daar Ousmane Sonko dina dem wuti parrainage ngir fas yéene nag soobu ci élection yi vox populi naan man tee gaawtu bañ a am ndax agent judiciaire bu état bi ci boppam ma ngay xamle ni moom Ousmane Sonko juge ba ko atte moog El Hadji fay Faye seizième adjoint au maire bu sigi coor ay mag ak rakk lañu maître Abou jaali kan ne déet foofu sori na sax ndax nag dogal gi mënoon naa bañ a am Ousmane Sonko délai biñ ko mayoon ngir mu defu recours da koo weesu maître Adama Fall ne bi ci boppam balaa ñu ko doon wax boppam moo waroon bàyyi le témoin tout cas juge si moom daal dinay bindaat Ousmane Sonko fayal laaxu turam ci liste électorale yi daal di jël mbéjteel nag teg ci kanamu nguurug Sénégal jël ab dogal boo xam ne taarix dee su ko fàtte defaraat jikkoy yoon wi nga xam ne gaa yaa ngi ko doon salfaañe waxtu woowu ay ñoñam nekkuñ ci jàmm nekkuñ ci salaam libération naan maan xaw a caam genn jege ñaala Ousmane Sonko téye nañ ko ni ki démb nag nday faatu faal faala fleur ñu ko doon àtte nday faatu ne man patriote laa ndax dama bëgg samam réew réew mi ko kon nday faatu day procureur ba ñetti at la sàkku daal di koy soleil naan man attention de Sénégal day gën di métti di gën di tar candidat yi di gën di bëri di dagaan baatu réew mi yéen kaay bi naan maan téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn la ñu woon tey candidat yi dem jël parrainage yegg nañ ci ñaari téeméer fanweer ak ñeent soxna yi moom fukk ak juróom benn dongu lan ci tribune yéen kaay naan maan Karim Meïssa Wade war a ñibbi ci Sénégal war fi fekk moom doomu Abdoulaye Wade yi ñaar yoo xam ne mënees na koo tere nelaw benn bi mooy amande téeméer ak fanweer ak juróom ñetti milliards yi nga xam ne CREI ci boppam moo ko daal di wax Karim fay ko te Karim ndax mën na bokk ci élection beneen bi mooy moom Karim Meïssa Wade war na fi fekkaat président Macky Sall nga xam ne su dee victime dong victime mënees naa jàpp ne Karim daal mooy victime am bu njëkk le point actu naan man waa parti démocratique sénégalais yooyee ni ki démb dem nañu ci cité kër góor gi jébbal seen njaal président Bougane Gueye Dany gannaaw bi nga xam ne ñàkk na soxnaam moomi Dany Gueye délégation parti démocratique sénégalais bi nag ci yónnee ak njiitalu Karim Meïssa Wade firndeel seenug naqar seenug njaal waaye tam bokk ak Bougane ak njaboot gi tiis metti métti bu leen fàtte nii soppi nan gouvernement soppi tur waaye soppi wuñ doxalin yéenekaay bi ba tey di ma xamal ne en tout cas ministre de la femme day ma ngay financé ay soxna yu nekk ca Kaolack ndàngaan soxna yoo xam ne nag bokk gis-gis ci boppam la ñu bokk jël fukki million jébbal leen ñu liggéey ñoom soxna yi kalabaas bokk gis-gis teg ca ñaari million fas yéene ko séddale soxna yi nekk ca Kaolack jaara jaw naan xeexañu ko may te daañu wéy di xeex ngir soxnay Kaolack yi le point naan man Cheikh Mansour Diouf jox nañ ko docteur honoris causa sa New York def ko ambassadeur culturel kuréel bu UNESCO citoyen d'honneur te New Jersey libération yéene kaay naan maan waxtu woowu ay sénégalais ñi ngi sëngeem nekk ci njàqare lu toll ci ñetti téeméer juróom-ñeent fukk ak benn ci sénégalais yoo xam ne ña ngay dund daanaka jaxaan na ma ca dax la barsa wala barzaq gi yoonu géej gi lañu jëloon di xaar fim na ñu jële leen foofee andi leen Sénégal xale ya naan ña ngay dund méttit autorité yu marok ya bàyyee leen seen bopp ndox ni la ngir naan wala dem gaanuwaay sax amuñu ko sudul woon consul baabu mi nga xam ne moo leen di jox lekk naan nan bu yàgg fayallaahu naan man poule de la mort Sénégal ci kan Côte d'Ivoire 2023 bi ma nga féetee ca groupe C ba war ko bokk ak Cameroun Guinée ak Gambie waxtu woowu jongante xaritoo diggante Sénégal ak Cameroun ndey boo maytul ñu dàq ko tàbbal ko géej sunu lamb naan man diggante Modou Lo ak Ama moo nar a neex kay Modou Lo naan kon yow Ama Balde faaw nga xeex Ama Balde naan kon yow Modou Lo Ama yee bi moo la déranger tribune naan man ka jëloon liir ya daal di koy tëmbal ci foos ca yëmbal moom ma ko defoon jàpp nañ ko